fii ci Kaolack ci école nationale euh, des sous-officiers d'active ànd fii ak euh, monsieur le gouverneur le chef d'état-major général des armées et le commandant de l'école ci tuuru président de la République Macky Sall chef suprême des armées di ñëw ci cérémonie bi nga xam ne mooy la sortie de la quarante et unième promotion promotion bi seen parrain mooy di El Hadj Boubacar Ba mu nekk militaire bi nga xam ne ci Gambie la gaañu nekk référence ci xale yi di leen wax ne moom ci dundam valeur yi nga xam ne loolu la pratiquer mooy courage abnégation ak persévérance ci li muy def